koy njaboot gi ci loxo yu wóor teg leen njaboot gi ci loxo yu ko bu fekkee ne waa kër sëñ Touba ay plate yu bari la man sëñ Fallou maay góor de la paix, Ablaye Très tôt, très tôt, ñu mën a dem voter ji en toute sécurité loolu moo des ce qui reste c'est le défi de la participation ce qui reste c'est le défi de l'organisation li ci sunu wàll en tant que Benno Bokk Yaakaar war nañ ko dox totalement incha allah au soir du 23 vingt heures war naa fekk lépp leer que Dakar soit marron et beige Benno Yaakaar mais avec Dakar l'ensemble des dix-neuf communes d'arrondissement de Gorée à de Yoff en passant par les Parcelles Assainies la Médina les Sicap Hann Derklé Grand Dakar Biscuiterie enfin que tout le monde, tout le monde, l'ensemble des 19 communes soient des communes Benno Bokuyakar. Et cela va assurer, Inch'Allah, la cohérence dans la gestion des politiques publiques. Bouboba, président Macky Sall, dit demander plan Sénégal émergent. Bouboba, Ablaï Djoursar, dit au niveau de la ville de Dakar. Mais après Ablaï Djoursar, que l'ensemble des 19 communes Mentié loolu mooy tax citoyens yi ñu doon aujourd'hui ñu mën a gis sunu bopp totalement totalement ci li président yéene Sénégal je vous remercie. maa ngi remercier bu baax toutes les populations de Dakar def nañu campagne boo xamante ne moom la Dakar doon xaar dem nañ fekki population yi fépp ñu nekk ci biir Dakar. indi leen Dakar bu bees Dakar bu bees mooy ñëw corriger li fi xew ci Dakar depuis plus de dix ans depuis plus dix ans ville de Dakar dañu doon xaar amay élu maire boo xamante ne day toppatoo soxla Dakar mais malheureusement depuis dix ans ñi ñu am pour que ñu gérer Dakar au lieu que ñu gérer Dakar fitna ak xeex ak jéem a jël nguur la ñu fi ñun dañoo bëgg bañ ñu falee le 23 janvier 2022 ñu jaamu soxla Dakar indi leen Dakar bu bees ñu tënk ko fukki ponk ponk bu njëkk bi. mooy la gouvernance de la ville de Dakar la gouvernance de la ville de en instituant la conférence territoriale de Dakar la chaque année en plus de ce que fait le conseil municipal maire le bureau municipal l'administration municipale danañu oo chaque année une fois au moins par année tous les acteurs du département de Dakar ñu daje pour élaborer les priorités du département comme quoi le conseil municipal va travailler conformément aux priorités de la conférence départementale de Dakar. Mais nous n'allons pas nous arrêter à la gouvernance de Dakar. Dakar bi leen bëgg defaral muy Dakar bu bees Dakar la boo xamante ne xëyu ndawu Dakar dañ koy dugal ci suñu programme ñi yore Dakar depuis 12 ans yaakaar nañ ne ville de Dakar warul créer des emplois ñun projet yi ñuy defaral Dakar day nekk des projets à haute valeur ajoutée sociale et l'emploi sera au cœur de nos priorités l'emploi des jeunes de Dakar jeunesse de Dakar vous leen l'opportunité de mettre à la tête de votre commune maire boo xamante ne comprendre na seen soxla xamante ne day toppatoo maire boo xamante ne day créer des emplois d'ailleurs pour la jeunesse estudiantine le maire de Dakar bi ñuy le janvier qui s'appelle Abdoulaye Diouf va donner plus de 1000 bourses aux étudiants de Dakar jeunesse de Dakar da ngeen soxla un maire qui vous accompagne un maire qui vous comprend un maire qui vous suit par rapport à l'insertion mais du yam foofu parce que les femmes de Dakar verront une ville de Dakar orientée femme jigéen ñi Dakar rares sont parmi vous ñi xam ville de Dakar dana def des crédits pour les femmes ñun am nañ une solution pour vous donner des crédits pour les projets femmes à des taux quasi nuls loolu c'est possible mais en matière de santé si suñu programme Dakar bu bees am nañu la réalisation prochaine de l'hôpital de niveau 2 des Parcelles Assainies c'est possible nous allons le réaliser mais notre projet des médecins de quartier. Beaucoup de personnes âgées sont dans les maisons de Dakar qui doivent être suivies par des médecins. La ville de Dakar va avoir des conventions ak ay médecins yu bëri pour que bu amee ay mag ñu feebar ci kër ñu mën leen woo ñu ñëw ci kër yi faj leen à la charge et la prise en charge par la ville de Dakar mais nous n'allons pas oublier la petite enfance d'ailleurs nous prévoyons d'installer le conseil municipal des enfants de Dakar pour accompagner le conseil municipale de ville bi sortir des urnes le 23 janvier 2022 en matière d'éducation Dakar day dugg dans la compétition dans la compétition pour avoir une école d'excellence beaucoup d'enfants dañuy dem jàngi duñu ndekki dañuy nekk ci école yi bu ñu bëggee naan duñu mën a naan parce que école yi yu bari amuñu ndox la ville de Dakar day installer l'écosystème nécessaire pour que ñu am des écoles d'excellence école yoo xamante ne boo ubbee robinet ndox bi sotti école boo xamante ne toilettes yi dañuy baax école yoo xamante ne am cantine scolaire pour que xale yi mën a ndekki pour mën a comprendre li di jàngale ma population de Dakar Dakar n'a plus de plateforme sportive parce que la ville a abandonné ses jeunes par rapport au sport ñun boo gisee suñu programme Dakar bu bees di nga fa fekk dans chaque commune de notre périmètre danañu installer des infrastructures sportives des terrains gazonnés des plateformes de basket de handball mais aussi des équipements pour les arts martiaux, parce que le maire de la ville doit accompagner les jeunes dans les activités de sport. Mané, Dakar ne doit pas rater l'opportunité d'installer un maire qui en veut, un maire qui a de l'ambition, maire boo xamante ne xam na soxla Dakar di ko maire boo xamante ne xamul fitna maire boo xamante dafa dal maire boo xamante ne si yar ak teraanga lay liggéeyee ma ne nañu leen ko bulletin bi wan nañu leen ko ngeen ko mooy bulletin bu chocolat bi ñaari yoon ngeen di voté bu njëkk bi da ngeen di voté bulletin bu chocolat bi ngeen voté Ablaye Diouf Sarr mu nekk maire de la ville de Dakar après ngeen demaat jël bulletin bi xamante ne même bulletin bi la chocolat ak bopp fas bi ngeen voté seen maire Benno Bokk Yaakaar dans votre commune. am na ñoo xamante ne commencé nañ jaxle commencé nañ tiit ñi ngi bëgg a xoxatal nit ñi mais na seen xel dal le Sénégal vote depuis la nuit des temps le Sénégal a une culture citoyenne et démocratique très élevée kenn mënu leen tiital danañu dem voter le 23 janvier dans la discipline dans le calme voter